Uh... yeningi setane ci PMTV la chaîne de serviteur de Mam Khalifa Niass PMTV mo len di ñaanal ziaré jamm ak salam a'udhu billahi minash shaitani rrajim rahman rahmanir rahim dahimat ash-shaykh yahdi lana bi hadha al-mahdar wal ta'tu fi bi nazratin ta'ti lana bi zafar ganna ban sante yalla julli ci yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu talibé ci tariqa sidi ahmed tijani jaarale ko buntam mam khalifatul Haji muhammad mi nga xam ne moo waral bis bi tey tur bi Idrissa Niass ibn Alhaaj Ibrahim Khalifa Niass waaw mouvement bi nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi koy wax shababu ni'mati shababu ni'mati ànd liggéeyal maam Khalifatul Haaj Muhammad mi nga xam ne mooy suñu maam duñu wax sax mooy suñu maam waaye mooy suñu sëriñ ndax lii yëpp moom moo ko waral di sabab bi nag ñu ngi ko sosoon daaw daaw lañ ko sosoon ren la si deux ans alhamdulilah rabbil alamin ñu am ñu dox ci jéego yu am solo yu am solo am solo ànd seen mouvement bi ñëpp ñi nga xam ne dara taxul ñoo jug lu dul liggéeyal suñu maam suñu sëriñ xalifatul xaaj Muhammad waaye jaarale ko ci buntab joxe lekk joxe ñam moo tax ñu jël suñu bopp tuddee ko shababu neema shababu neema nag ku nekk xam lu muy firi moo ñun ñi ñu dajaloo fi tey ji xale yu ndaw xale boo fi gis rek tey maanaam aasam matee wut ko xale yu ndaw ñu jël suñu moyen defar ay ndekki yu mucc ayib di ko jox jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo waral ñëw tey jii si bisab Seexu Tijaan bi si bisab xalifatul xaaji Muhammad amuñ si xàjjab seen amuñ si kii lañ xale la waruñ koo jox amuñ si kii mag ñëpp la ñuy jox rek di leen jox ay xéewale ki ay naan di topp koo couvent yi nga xam ne ñoom ñoo war a jugee ba ndukku man war a ñëw si bis bi nga xam ne mooy bisab ziyaara bi ñëpp ñu wër leen rek wër këriñe seen yi nga xam ne dem na kër xalifa bi joxe fa ay lekk fa tabaarakallaahu dem dugg neen kër imaam yi dugg neen kër ñeseen yëpp joxe fa ay lekk fa ay ñam bis bi rek moom moo ko waral di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax di gërëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu sant yàlla rek sant yàlla bu baax a baax a baax alhamdulilahi rabbil alamin ndax tamit euh, nit ki du jékki-jékki rek booy commencé si benn ngay commencé ndax alhamdulilah am na ñu ñu jàppale bu baax a baax ku si mel ni président Talla ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax nga xamne geumul kudu ku du xalifatul xaaj Mouhamad jàpp na ci bu baax ci bis bi nga xamne moy bis ziar bi waye jaarale ko ci buntu shababu Nihma jox nañu xewal lu ñu jox sax mën nañ wax na mom mo defar lépp waye tamit shabab bi ndaw yi ci nekk fa tabarakallah jël leen seen moyen bop def kudija cotisation ma sha allah fa tabarakallah ñëpp matal ko ñu jël dajale am nañ ay nit ñoo xamne ñoo ñuy jàppale fa tabarakallah ki nga xamne melni mom la tuddu moy président talaje ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Kaolack jàppale nañu ci bu baax a baax ak xalifa bi nga xam ne moom moo fi xalifatul xaaj Muhammad ak waa ñi seen ñëpp daal fa tabaarakallaahu gërëm ne ñëpp sant ne ñëpp fa tabaarakallaahu waaw waaw alhamdulilah rabbil alamin nii la rek ndax affaire yi moom nit ki boo nekkee kilifa wala nga nekk taalibe da ngay da ngay am jikko jikko jikko bu baax daal jikko bu rafet ñi euh, oo daal ñëpp si si euh, shabab bi di leen lancé message na ñëpp ñëw ndax lii ñëw nekkul lenn lu dul liggéeyal sëriñ bi rek liggéeyal sëriñ bi rek moo ko tax a jug fa tabaarakallah waaw ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm euh, BMTV di gërëm média yi nga xam ne ñëw neen fi fa tabaarakallah di gërëm waa shabab bi ñëpp ñi ñaan yàlla ñu fekkee ka at yi bëri bëri bëri bëri yàlla yokk xéwal gi yokk taraang gi si barke Cheikh Tidiane di leen wax kullu aamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam asalaamaaleykum si Abdoulaye juuf ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara Serigne Lamine Niass la ci Boulaye Niassène di kontaan ci sababu naamati ci xéewal yi nga xamante ni ñu ngi koy def di ko ganalee gani maam xalifa yi dañ ci am mbégte ak yokkute ak ziyaara gi nga xamante ni maam xalifa li taxoon ñu koy def ñun li gën a tax ñu gën a def lii mooy maam xalifa bayit bi mu waxoon ne wa bil jiddi wal xazmi sadidi wa bi tuqaa tunaalu maqaamaati rijaali aliya mu ne góor yàlla yi ñu ngi amee maanaam seen cër ci yàlla ñu ngi koy amee ci farlu ak dogu ak bëgg-bëgg ci ñett yooyu ci lañ jël ñun delloo ko sunuy mbir maanaam bëgg maanaam mooy li ñuy def nii bu ñu amun bu ñu bëgg duñ ko def beneen ba mooy dogu giñ ci am mooy coono giñ ci am yëpp jàpp nañ ne bànneex la moo waral ñu koy jël jël suñu alal jël suñu nangam ak mboolem ñu ñi ci jàppale suñu président Talla Dieng ak mboolem ñi nga xamante ni jël nañ seen dërëm def ko ci sëriñ euh, mboolem ñi nga xamante ni ñu ngi ci ñëpp jàpp nañ ci sëriñ Abdoulaye Ngidje Niass nga xamante ni moom mooy moom mooy seexu muhaadara moom mooy sëriñ bi moom moom moom lañ jiital ci lépp moo ñu ñaanal du ñuy giide di ñu teg ci yoon gannaaw kooku noonu mboolem ñi nga xamante ni jàpp nañ ci ñëpp ñu ngi leen di gërëm ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni ñekk na association boo xam ne ay ndaw ñoo ko formé ñoo ko ñoo ko samp di ko def maanaam di ko jaf ngir ne dañuy liggéeyal maam xalifa jaaree ko ci buntu social maanaam jël lekk loo xamante ni miinuñ ko woon fii ci lew nañu seen ñu koy def kon yokkute la ci ñun moo waral mbégte googu lañ am moo waral daal ñu teew teewal suñu doole teewal suñu ñaq teewal suñu xam-xam teewal sunu alal teewal suñu lépp ànd ak mbégte di sant presse bi di sant mboolem ki nga xamante ne ñëw na fi loolu daal moo waral waraloon teewaay bi ak mbégte gi. Bonjour tout le monde, je me de la section féminine du Shabab Niamati. J'ai le plaisir de me tenir devant Et je vous remercie pour, euh, votre, bienveillance. Pour votre bienveillance. Euh, en fait, euh, notre, notre projet dénommé Bonne Niamati, qui a pour but d'extérioriser les écritures de Mam Khalifa ainsi de restaurer les fidèles qui seront en difficulté pour, les, pour les repas, etc en euh, fait, euh, ce, mouvement a pour but d'extérioriser les écritures de Mam Khalifa et de restaurer les fidèles qui sont en besoin. Euh, qui, sont en besoin. Car nourrir son, prochain est un acte béni par, est un acte aimé et béni par Dieu. Euh, ñun ñooy ndawal euh, xéewal yi man nag maa ngi tudd Mame Fama Niass présidente euh, Shabab président section féminine bu Shababu Niamati bon ñun suñu but mooy leen lenn ñu fexe ba ñi ñenn ñi nga xamante ni xamuñ maam xalifa ñu xam lan mooy bindam maanaam ñu transcrire ay écriture am ba ñëpp mën see jot mën a comprendre lan la maam xalifa wax mën a xam dayoog Mame Khalifa Niass beneen but bu ñu am tamit mooy Euh, jox fidèles yi nga xamante ni dañuy nekk en difficulté bu ñu ñëwee du ñu am fu ñu nekk par exemple ñu jox leen fexe ba ñu xewlu ak policiers yi jaaykat yi et cetera fexe daal ba ñëpp gis seen bopp ci ziyaara bi parce que yàlla moo ni euh, dundal sa sa prochain loolu daf ko daf ko fonk te tamit daf ko bëgg merci beaucoup dalal ak jàmm ci